asalaamaaleykum euh, di leen di jaar ñu ngi fii ci yoonu Louga bi jëm saint bi mais euh, accident bi fi am metti na metti goo xamante ni foo ko nattu rek euh, weesu na fa accident bu méttee métti la mu nekk benn bus boo xamante ni benn bus bu daw ba këpp la donc accident bi image moom pour ñu wone ko sax dafa doy waar te xam naa ni. li ma gis nii ñi ci ñàkk seen bakkan xam naa ni bari na trop trop trop trop trop trop trop bari na lool bis bi këpp na en tout cas ñi ngi génnee di yóbbu fii ci yoonu Louga accident bu metti la accident boo xam ni foo ko nattu rek euh, mettit bi weesu na ko image yi nag dafa doy waar ndax euh, ba léegi nii nit ñi ñi ngi ci biir bis bi ñu ngi leen di génnee donc li ñu jot a génnee moom am na yuñ ci muur ñoo xamante ni ñii ñàkk nañ seen bakkan donc mu nekk loo xamante ni euh, foo ko nattu rek euh, weesu na fa métti na lool doy na waar trop accident bu métti la boo jugee Louga jëm Saint-Louis rek ci sorti Louga bi euh, Louga bi e-, exact ci duwaan yi foofu la accident bi amee mu nekk benn bus boo xam ni dafa daw ba këpp ba léegi nit ñi ñu ngi ci biir ñu di leen di génne waaye ñi ci ñàkk seen bakkan moom liñ jot a génneegul doy na waa trop ndax euh, dañuy obligé sax euh, mën a reculer ndax image dafa choqué loo xamante ni boo ko xoolee sa yaram day daw moo tax ñu mujj obligé bañ a génnee image yi ndax euh, dafa ñëwee ni mu mel dafa doy waar sapeur ñi ngi fii gendarmerie ñu ngi fii donc fii la ci yoonu Louga bi mu nekk accident bu metti mënaguñoo wax nag nombre yi ci ñàkk seen bakkan waaye li ñu gis nii ak accident bi ni mu mel nii metti na bus bi nag dafa daanu ba mën na la këpp complètement ba nor jamono gii may wax ak yéen nit ñaa ngi ci biir ñu di leen di génnee ñu ngi leen di génnee di génnee nit ñi mu nekk accident bu méttee méttee métti mënuñu nag euh, génneegul image yi mais image yi moom dafa doy waar en liñ ci gisagul ci ci ci nombre bi ñuy jël di yóbbu bari na bari na trop bari na biis bu mag la biis bee daw ba xalanko nële daanu mu nekk accident bu metti ba léegi nit ñaa ngi ci biir ñu di leen di génn nit ñaa ngi ci biir ñu di leen di génne ñaa ngi ci biir ñu di leen di génne metti na lool sapeur yi noonu di def liggéeyam sapeur yi ñu noonu di euh, def li nga xamante ni moom mooy euh, liggéeyam ngir ñu génne <coughs> blessé yi voilà en tout na foo ko natt weesu na ko métti na lool accident bu metti la doy waar métti na torop torop li nekkoon ci bus bi nag neenu nu bari na ñu ngi noonu am na yuñ jot a génneegul ñoo xamante ni ñoom ñàkk nañ seen bakkan yóbbu nañ leen am na ci ay blessé yu ñu yóbbu mais ba léegi am na ñu nekk ci biiru biis bi ñu ngi noonu nga gis ni li ñu gis nii li fi ñàkk bakkan xamuguñu nombre exact waaye bari na ndax accident bi metti na sapeur a ngi ñëw sapeur bu Louga ngi fi gis nañu aussi neenuñu sapeur bu saint aussi mi ngi fi fii mu nekk circulation dafa bloqué kenn dematul kenn dikkatul xam naa ni dañu dikkaat gis nga eh, kiiwu oto kii yaa ngi ne oto kii yu mag yële gis nga bus bi la ñuy jéem a yëkkati nale eh, eh, pour tourner ko ñu ngi ne pour jéem a tourner li nga xamante ni moom mooy bus bi mënuñu nag jege ndax image dafa doy waar ñi ñu jot a génnee nga gis ñu ñàkk seen bakkan loolu dafa doy waar léegi nag euh, ñu ngi ne pour jéem a tourner bus bi comme ça pour mën a génnee ñi nekk ci biir metti na lool sapeur ngi ñëw def seen liggéey sapeur bu Louga ñu ngi noonu ñu noonu ñëw di def seen euh, liggéey mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu euh, metti la mbir mu doywaar fii ci euh, fii ci euh, yoonu Louga bi jëm Saint-Louis nga xamante ni boo génnee sortie bi rek ci duwaan yi nga jëm yoonu Saint-Louis rek foofu la accident bi ame li ñu leen wax nag gis ngeen nombre bi comme niñ koy waxee rek xam naa ni bi ñuy gis nii bon ñu ngi doon wax naan oto bi dafa amoon fu doon tàkk ak bon loolu wóoraguñu ñenn bi ñu ñëwee rek ñenn ñi ci doon wax la mais loolu wóoru mais en tout cas li ñu leen mën a wax mooy autobus bi moom dafa tourné ba nga leen nor carrément am na nag ay nit ñoo xam ne ñi ngi ci biir ba léegi ñi di leen di génnee. ñi ñi jot a génne am na ci ñoo xam ni bari ñàkk nañ seen bakkan ñu yóbbu leen parce que boo gisee bus bi nu mu tëddee nor carrément dafa jaaxaan bus bi dafa jaaxaan carrément mu nekk ci euh, sorti Louga bi exact rek booy génn Louga rek jëm saint foofu la accident bi amee metti na lool voilà donc mi ngi noonu ñu ngi noonu jéem a tourner li nga xamante ni moom mooy. Euh, ndax sànq comme ni ma leen ko waxee rek image yi dafa doy waar doy na waar doy waar goo xam ni euh, boo ko jegee rek sa yaram day daw parce que noonu nit ñi tëddee ñu génnee leen noonu loolu moom ëpp naa filmer ëpp naa filmer metti na lool fii la xewee fii ci euh, fii ci euh, Louga euh, ci sorti Louga bi ni ma leen koy waxee rek yéen ñi ànd rek ci Jacob dafa mel ni gis nañu gouverneur mi ngi noonu agsi na gouverneur a ngi noonu agsi na yéen gis ni accident bi metti na metti na lool lool lool lool metti na torop li ci ñàkk nag seen bakkan li ci ñàkk seen bakkan bari na ñu ngi noonu di génne ñu noonu di génnee ba léegi di génnee nit ñi préfet aussi agsi na gouverneur de la région de Louga ak préfet du département du Louga ñoom it euh, yegsi nañu ñoom autorité yi ñu ngi noonu ñëw vraiment taxaw di assisté ñëw nañ ñoom it taxaw population bi aussi génn nañ mu nekk loo xam ni mi ngi xewee fii ci euh, Louga mbir mu euh, méttee métti la sapeur yi noonu di def seen liggéey ñi ngi ñuy wax ñi sapeur bu Louga waaye neenuñ aussi sapeur bu Saint-Louis ñu ngi jéem a tourner bus bi xam naa ni dañuy jéem a pousse beneen oto sapeur bi pour euh, mën a génne li nga xamante ni moom moo fi xew fii ci euh, fii ci fii nga xamante ni fii ci Louga fi la accident bi amee metti na trop metti na trop moo tax euh, ñu obligé reculer ndax image yi moom euh, ëpp naa wane li nga xamante ni euh, moom lañ jot a génne mu ngi ne la gis ngeen ñu ngi ne li évacuer li nga xamante ni moom mooy blessé yi. ñu ngi ne di eh, évacuer li nga xamante ni moom mooy blessé yi am na ñi nga xamante ni jot nañ ci eh, ñàkk seen eh, bakkan ñàkk seen bakkan mu nekk mbir voilà ñu ngi ne la génnee nit ñi ni walla sapeur ngi nee di génnee nit ñi di yóbbu ñu ngi nee di jël di yóbbu ñi ngi nee di jël di yóbbu autorité yi teew nañu sapeur ñu ngi fii gis nañ sapeur bu Louga ba léegi en tout cas bus baa ngi nële bus baa ngi nële daanu gis ngeen bus bi bis baa ngi nële ngeen gis bis bi mi ngi noonu ba léegi ñu ngi noonu di génne blessé yi gouverneur ñëw na préfet ñëw na mu nekk accident bu euh, métti métti métti métti en tout cas métti na foo ko nattu ci métti rek euh, weesu na ko ñu ngi noonu di génne blessé yi gis ngeen am na ci ñoo xam ni moom dañu ñàkk seen bakkan donc métti na ndax euh, ba léegi ambulance yi gis nañu ñi ngi ñëw gis nañu ñi ngi ñëw mooy euh, Louga boo génnee boo génnee sorti Louga bi jëm Saint-Louis maanaam euh, fi douane yi di monte fi douane yi di monte rek euh, sorewuñu boo ko rombee tuuti rek foofu la rek ci biir Louga la rek boo rombee Eureka bi daw tuuti ci kanam rek daanaka ay ay ay mètre wala li koy manqué kilomètre du bari foofu la foofu la accident bi euh, amee mu nekk accident bu metti image nag moom ëpp naa jege gis nga ñi ngi ne ba léegi di génnee euh, li nga xamante ni moom mooy blessé yi ñi ngi ne di génnee blessé yi ñooy di génne blessé yi bus bi nag dafa daw gis nga dafa këpp mais nag xamaguñu exact lan moo sabab euh, accident bi mais fii benn bus rek euh, moom laa fi gis maanaam mu gis nga mu ngi noonu ñu koy jéem a euh, mel na liy jéem am na lu ñuy jéem a yëkkati noonu voilà ñu ngi noonu di génne blessé yi voilà saako yi nga xamante ni aussi yëpp. ñu ngi woon ci biir euh, kii bi ñu ngi ci biir bus beeg bagage yi yooyu yëpp ñu ngi koy génne ñu ngi génne lépp gis nga am na blessé yi ñu jël noonu ci oto sapeur bi noonu di ko yóbbu mi ngi noonu am na blessé yi ñu jël ci oto sapeur bi di ko di ko di ko di ko yóbbu gis nga ñu ngi noonu génne voilà en tout cas euh, xamaguñu nag euh, nombre exact bi nekkoon ci bus bi xamaguñu ko mais am na ci liñ jot a génne boo xam ne moom da ngay gis dañ leen a muur ñu ñàkk seen bakkan mais am na ci blessé yoo xam ni ñu ngi noonu di leen di évacuer voilà am nay xale yu ndaw yooyu yëpp donc vraiment gis nañ sapeur ñu ngi noonu yi gaawantu sapeur euh, seen taxawaay gis nañ leen ñëw nañu vraiment di liggéey gis nga très rapidement ñi ngi noonu di évacuer yenn blessés yi ñu ci am liggéey bu am solo taxawaay bu am solo sapeur gouverneur teel na ñëw préfet aussi teel na ñëw ñoom ñëpp ñëw gis nañ gendarmerie ñoom ñëpp ñu ngi ñëw teel a ñëw mu nekk mbir mu métti mu nekk mbir mu métti waaw yoonu Saint-Louis voilà mu ngi noonu donc foofu la xewe en tout cas voilà ñu ngi noonu gis nga oto kii bi euh, ñëw pour euh, jéem ko tourner bus bi ñu ngi noonu di reculer. ñu ngi noonu. bis bi lañ bëgg a tourner ndax bis bu mag la bis bu euh, mag la bis bi moom lañu ñu bëgg a noonu bis bi lañu bëgg a tout cas metti na accident bu metti la accident bu euh, méttee metti la xam naa ni après euh, tasanteeg bi def liggéey ñu jéem a xool ñenn ñoo xam ni ku ko fekkee en tout cas bis bi moom ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu noree dafa kii complètement nuux complètement am na ñu nekk ci biir ci biir euh, bus bi ba léegi ñu nekk ci biir bus bi ba léegi donc c'est ça xam naa dañu dikkaat ak yéen ci kanam incha allah. donc xam naa ni dañu dikkaat ak euh, yéen ci kanam incha allah ngir euh, andil leen li nga xamante ni moom moo xew fii.